yàlla sàmm leen yàlla aar leen su ko defee tamit ñu indi xadis bi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox dénkaane ci xeetam gi ndax moom lépp lu mu wax rek yàlla moo ko ko waxloo te du wax mukk ci bànneexu baqanam dafa wax ni ixtanim xamsan qabla xamsin shababaka qabla haramika wa sixataka qabla saqamika wa xinaaka qabla faqrika wa faraiqaka qabla suxulika wa xayaataka qabla mawtika mu nekk juróomu dénkaane yoo xamante ni benn bu ci nekk nit ki su ci tegee tànkam mën na texe àdduna ak àllaaxira ndax yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam du wax ci bànneexu na bi ci njëkk nag dafa wax ni shababaka xabla haramika mu ni maa ngi lay dénk yow sa ndaw gi na nga ko na ko jeexal ci sàkku xam-xam ban xam-xam ngay sàkku nag mooy xam-xam bi nga xam ni mooy lay jariñ xam bi nga xam ni mooy tax nga jariñ fii ci àdduna jariñu ci àllaaxira waaye nekk ndaw yow sa ndaw gi lépp nga jeexee ko ci wàllu caaxaan jeexee ko ci wàllu foo ci xeeti mel noonu loolu baaxul ci ndaw te ndaw moom mënut a ñàkk ndax nit ki li fekk mu ngi ñaan yàlla gudd fan li fekk mu ngi ñaan yàlla gudd fan rek dina jàll ci ndaw te léegi bari na bari na bari na ñoo xamante ni dañ lay wax ni damay dox sama ndaw li ba mu jeex te fi ngay amee fukki at ak juróom ba fi ngay amee ñeent fukki at yaa ngi ci ndaw jamono jooju nag loo fi mënta liggéey ngir sa ëllëg su la xasee ba raw rek raw na la su la ba raw raw na la moo tax yenente bi ne kon yow ndaw ni nga profité nag ci ndaw gi mooy maanaam na nga saako xam-xam hmm, soo noppee nag nga ut liggéey su fekkee da ngay jàng nga jàpp si sa jàng si dee da ngay liggéey tamit nga jàpp si sa liggéey bari na ci mag ñoo xamante ni dañuy dem ba nekk mag di wër di ñaanaatu wala di dugg ci détail yoo xamante ni soo xoolee ba xool da nga xam ne ñii seen ndaw dañ koo foowee te ndaw dafa am solo dafa am solo benn exemple lañ ciy jox ñu Muaz Muaz euh, kenn la ci euh, saxaaba yi waaye moom dafa nekkoon ndaw boo xamante ni euh, nu ma la ko mën a waxee ci jamono ji mooy dafa nekkoon star yaayam dafa amoon xaalis loolu sax Muaz suy dem suy doxantu daanaka trois cent mille lay génnaale ànd ak ay xaritam léeg-léeg ñu dem soirée Muaz moo leen di jox lépp lu ñuy feete ci soirée bi ci Muaz lay génnee xale yu jigéen ñi lu waay di xewle te woo Muaz du safe ah boo yenente bi nag wootee nag leer googu noonu nag tàbbi ci xolam Muaz tàmbalee di bàyyi waat xel lu bëree bari bari bari bari bari ba mu dem ci yeneent bi nag ah, tuub dugg ci diine lislaam mais ba mu tuubee dugg ci diine lislaam waaye juróom bu jigéen daf kaa woo na ko euh, Muaz yow ma dégg naa euh, danga dugg ci diine yeneent bi mun na ko waaw mun na ko waaw mais la moo tax nga dugg ci kii nga xam ne dafa ñëw tàqale euh, suñu suñu suñuy suñuy maam ah li fi suñuy maam indi woon mu dàq ko yow kii ngay topp diineem mu na ko yaay neexul ba neexul mais waa ji li mu woote dëgg la yaa gannaaw nag moom moo ko doon jox xaalis yaa ji na ko daal li mu lay xamal mooy euh, bàyyil yenente bi te nga delloosiwaat sa xel man lépp lu bëgg mën naa la ko defal ah, waa ji moom wax dëgg yàlla ne yaay gannaaw gëm naa yenente bi nag ba noppi dootuma ci tegaati leneen ndeysaan ba yaa ji nag ba xam ni doom ji caaxaanul mu tàmbale nag mu tàmbale tàmbale tàmbale tàmbale su ko daan jox uh, ñaar fukk daal di koy jox uh, juróom benn kon xam naa incha allah ci sunu yeneen jotaay di dinañ àggali xisa boobu mu nekk sa boo xamante ni ñun ndaw ñi kenn ku ci nekk war nga kaa bàyyee xel kon ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziarewaat bu baax di ñaan yàlla lépp li ci jub ci yàlla la li ci dëng ci jàmbo doon wax la salaamaaleykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن